ba Sénégalactu beneen jiyee xawate ci tali bi jur ay bakkan yu rotati ni ngi démb ci altine ji yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet 2024 dëkk bi ñi nga xamante moom la ñuy wax Dalafe benn camion boo xamante ni daal dafa perte contrôle am daal di dugg ci benn kër yàq fa loo xamante ni kenn dootu ko mën a defarate mbokk internet cant ak ngërëm ñaan leen baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen seen bii di Buzz Sénégalactu dal leen ak jàmm kon ñu yàkkale xibaar boobee benn camion ngi nii boo xamante ni daal mu ngi jugeen ci diwaanu fi nga xamante moo di Tambacounda bi mu ñëw ba tool ci dëkk bi nga xamante moom la ñuy wax Dalafe mën nañ ne nag dafa daal di saaraan ba dugg ci li nga xamante ni moo di benn kër nam sa duggee nag mën nañ ne faat na lu toll ci ñetti xale yoo xamante ni daal ñu ngi dëkk ci dëkk boobee ci noonee nag lañ ko daal di yëgal ki nga xamante ni moo di ministre bi nga xamante moo yor wàllu dem beeg dikk bi di am Malick Ndiaye ci noonee nag la ñëw ci li nga xamante ni moo di bërëb boobee di wax ne daal léegi nag waajal nañ jëfandikoo bu baax digal li nga xamante ni moo jëm si wàllum permis à point El Malick Ndiaye nag mën nañ ne ba mu yegg ci bërëb ba nag laaj na na lan moo waral li nga xamante ni moo di accident bi ñii nga xamante ni daal ñoo fa dëkkee nee nañu nag ki nga xamat moo di camion bi daal dafa perte li nga xamante ni moo di contrôle am ba daal di dal daal ci li nga xamante ni moo di kër googe ki nga xamante ni moo di El Malick Ndiaye yemu ci loolu nag nee na daal ki nga xamante ni moo boobee nañ ko daal di jàpp nangu tamit li nga xamante ni moo di permis bu ñu mel